ah 2024 ah c'est une particularité muy échéance yoo xam ne ñu ngi koy waajal ñu am ci yàqin ak yaakaar bu rafet ne enfin y aura l'inédit au Sénégal maanaam élection yoo xam ne mosu fi am li ko waral mooy euh, dañu toll ci benn waxtu le peuple est devenu souverain ce qui n'était pas le cas nous sommes actuellement en train de vivre dans l'histoire politique du Sénégal une euh, étape très décisive. C'est la population, c'est le peuple qui prend ses responsabilités et qui veut décider de qui euh, euh, choisir, mais surtout demander, poser une demande sociale par rapport aux attentes. Parce que nag toll nañ foo xam ne Sénégalais yi dañoo yàgg xaar depuis 1960 d'ailleurs parce que lu yàgg la xaar bee yàgg. xaar boo xam ne dañu mës a fooyee askan wi xaar boo xam ne askan wi mësuñu ko jox gëddam bu voté jotee mooy voté mais quelque part joxuñu ko gëdd bi ñu ko war a jox parce que dañuy fal rek li dee nañ am na ñu koy wax sax naan sénégalais mën na fal mais mënul mën na mënul fal mais mën na folli pourquoi parce que souvent dañ daan indi ay critères di ko fale kii daf ma neex kii dafa rafet wala sama mbokk la wala nee na ma jàppale ko mais on est arrivé à un du Sénégal va connaître un bouleversement. Mm et je crois que li ñuy dund depuis 2021 wane na ko 2021 à nos jours lu ne xew na fii mhm. ndax chaque fois que li nga xam ne mooy processus électoral biaisé nañ ko wala bëgg nañoo indi loo xam ne dañ koy teg ci kaw nit ñi forcer leen ko population bi dafa wane maturité maturité boobu nag moom lay magnifier man di wax rek ni alhamdulilah enfin le peuple a compris donc dañuy dem ci joute yoo xam ne d'abord processus électoral bi le peuple exige un bon déroulement soo ko seetloo inscription yi am ci euh, élection yi passé bari woon na mais fi mu nekk nii mosuñu ko gis surtout les jeunes ñoo pare pour ñu may leen ñu ñu am inscrire mën a voter donc jeunesse bi ñu gis tey jeunesse bu consciente la mais euh, wuy jur yi tamit dem ba xam ni en partie ñoo sacrifier seeni njaboot wëlbati ku bëgg a defaraat donc conscientisation boobu nga xam ne am na lu ko indi ci réew mi moo jur loolu donc en 2024 incha allah si tout se passe bien et c'est ce qu'on demande en tout cas euh, maa ngi koy ñaan ki nga xam ne mooy président de la république mu comprendre enfin que le peuple a régi mais mu comprendre surtout enfin que le peuple a compris nañ ko teg ci yoon ki war a daan daan moom nag mënatul bokk parce que loolu tam particularité la je suis obligé d'en parler ndax def na ñaari mandat ba pare mais ci li nga xamante ni noonu lañ ko war a doxalee candidat ba ñuy am ñoom it bu ñu ko euh, ngemb ba finalement du am kenn ku mu jàkkaar lool donc 2024 sera l'année où enfin le Sénégal depuis 1960 muy xaar muy dundee yaakaar mm-hmm. muy teewlu ba pare di sonn di souffrir ñu ko may enfin le peuple sénégalais mu tànn ki ko doy. dana doon ki nga xam ne ci ni mu waxee war nañoo gis ndax jar na ko mais ci ni muy taxawee aussi war nañu gis ndax doy nañu ndax nag enfin su may wax maturité foofu la dootuñu voter pour lu neex kenn dootuñu voter parce que xaalis génn na dootuñu voter parce que naxaate mais léegi dëgg rek a xew ñoo toll ci jamono boo xam ne dëgg rek kay xew te dëgg rek kay mujj. donc man dama gëm ni 2024 particularité am boobu candidat yi ci nar a nekk yëpp dinañu doon ñoo xam ne pour askan yi may leen rek kanam ñu wax danañu wane lu dal xel foo bi dafa doy foo bi yàgg na naxante bi yàgg na et il est temps que enfin le peuple sénégalais qui mérite mieux que ça ñu téye ko ci anam yi mm-hmm. li nga xam ni moom la moom muy muy muy li ci suufam li ci ngelaw li li ci géej gi sénégalais enfin mën koo téye ressources yi ak richesses yi sénégalais yi mën koo jëriñoo enfin réew mi naat ndax nag yàlla bàyyiwuñu